jëwriñu jaayante ak borom Ndiassane ñu nekk ci liggéey boo xamante ne tey dafa am ay gan yu rot ci dëkk bu sell bi nga xam ne mooy Ndiassane eh, gan yooyu nag ki nga xam ne moom moo leen jiite mooy sunu mbokk di Serigne Modou Bousso Dieng ñu koy ziyaare bu baax eh, di ko wàcce ci wàcce waayu boppam fii ci këru boppam nga xam ne lii ñuy woote moom lañu ko wooteel moom lañ koy sàkkulit ndax si bu maamam la mu ànd ak mbokk mu baax mu ñuy wax sëriñ Assane Silla ñu ñëw teewal fi nag ki nga xam ni mooy PDG bu euh, Ecotara di Abdoulaye Silla ñu di ko ziyaare di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla yal yàlla yokk maqaamaam ak darajaam li mu bëgg si réew mi yal na ko yàlla defal ci barke borom rawdu bii ñu ñëw nag doon présenté Fekon nañu ci liggey bo xamanteni yegg nañu mom yëngu-yëngu yi muy yëngu si bu mag ñu bax ñi def nako ci kër yu bare bare yo xamanteni tay da fay ut yalla kon ñu nit ñu koy wo ci bërëb bi nga xamne moy mooy bu borom Ndiassane bërëb bi nak plan bi mo nekk ni li nga gis ni bibliothèque la bo xamanteni suñu mbokk serif ba li nga xamanteni fi la teud waye borom Ndiassane da ko fe fekkone moo ne bërëbam moo nekk nii lii mooy eh, bibliothèque bi bërëb bii nga gis mooy bërëbu maam Cheikh bu Mouhamad Kunta moo nekk nii plan bi moo nekk nii noonu la war a dérouler soo xoolee su war bu demee ba pare liggéey bi pare façade bi moo nekk nii eh, waaye ñu ngi ko ci tàllal loxo moom mbokk moomu nga xam ne mooy sëriñ Serigne Ablaye Sylla di ko ci yaakaar ak ndimbala ak jàppaleem lii mooy bërëbu maam Cheikh bu mooy fi ngeen génnee léegi sëriñ bi moo nekk nii maam Cheikh bu nag pour ki ko xamul moom moo xaw a bokk moo bokk ak jamono ak sëriñ Touba sëriñ Touba daan yónnee si moom ay ndaw alaaji Malick daan yónnee si moom ay ndaw bërëbam moo nekk nii kon ñu ngi sàkku mbokk yi yëpp waaye rawatina jëmm jooju nga xam ne mooy PDG bu Ecotra di si la liggéey bi ñun ñu ngi ko siy woo man nag maay jëwrinu jaayante ak borom Ndiassane ndigal li nag ñu ngi ko amee ci xalifa bi fi jóge woon muy Cheikh bekkaay Becaye waaye bi rakkam ñëwee toog si bërëbam daa jëlaat liggéey bi yëpp tegaat ko si sunu loxo ne nañu continuer eh, loolu la ñuy wane ni gis nga bërëb bi moo nekk nii mm-hmm. bërëb bu borom Ndiassane moo nekk nii waaw gis nga ba tey moo ñëwaat nii nekk nii gis nga lii yëpp moom la eh, bu demee nag ba pare nii la bërëb bi war a bindoo li non la wara mel ñuko si ci talal loxo ku bi nak duñu ko wax ndax ñom seeni bërëb kenn du tuddu ku da ngay def rek ba fa nga yam waye dal ñu ngi koy talal loxo mo xam moy ñew ligéeyal ñu alhamdullilah ligéeyal bopam mo xam it daf ñuy jox ñu ligéey waye lu mu si mëna doon dal Cheikh ablay silla suñu sey mbokki talibé ñu ngi lay loxo ci sa bu maam. aouzu billahi minash asheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim Euh, cher bi macha allah euh, dégg nañu kàddu yi dégg nañu demande bi en tout cas pour ñun suñu won xalaat sax ne dinañu am chance ñëw ci bërëb bu mel nii ba ñu dugal ñu ba ci biir ñu ko gisee tamit suñu xol sedd na ndax ñun ci njaboot gi lañu bokk euh, mu nekk vraiment mbégte pour ñun président Abdoulaye sila nag nekk suñu kilifa nekk PDG wu Ecotra def lu mel nii moom daf koy wër. mais li ma doon wax sànq cheikh bi ne ko barab yu mel ni ñi fi tëdd ñooy wër ñi koy defar mm-hmm. Mm-hmm. ndax kenn xalaatul woon xëy na bés si dina ñëw ñu ñëw teg fi suñu tànk man mi nekk doom ci euh, dëkk bi nekk doom ci kër gi sax mm-hmm. xëy na euh, mënoon occasion wala xalaatu moon sax xëy na un jour teg suñu tànk ci ñi bërëb bi toll ci toll ci ñun waaye suñu borom def ba xëcc ba indi ñu fi ba dugal ñu fi ba ñu fekk fi projet mel nii ñi ko mën a def ci àdduna bi nag ak ci taalibe yi kër gi bari nañ suñu borom def ba bàyyi ko fi mm-hmm. fekk ko fi mm-hmm. suñu borom moo ko tànnal boppam ak ci mm-hmm. barke ñi fi ñi fi tëdd euh, fi ñuy wax ni semaine bi ñu génn ñi ngi woon Ndar euh, président Abdoulaye Sylla maamam di euh, Mao Sylla sën Ndiaye ca Ndar mi ngi fay def la même chose mi ngi koy tabaxal institut islamique ba wam daara ci biir boobu balaa ma ko doon tàmbali ci xabru seigne Fallou la la commencé. Mm-hmm. Mm-hmm. ci xabru seigne Sidi makhtar mm-hmm. donc nekkul luñ ñu leen di netali donc dañ koy santé suñu borom mi nga xam ñi tëdd ci barab yu tedd yi ñoo ko seen bopp laaj ko lu melni et inshallah rabbi dina ag ci mom te réponse bi moom xam ngeen ko xam ngeen ko déjà machallah allah suñu borom bu baax mi ñu bolé ci ci li machallah allah suñu borom bu baax machallah